and ak sérénité té xamné togg bi ñor na yek ko mo ci dess bu len ko kenn yàqal bu len kër divertir ak ay procès réew mi babakar mm-hmm. ñaari mbir la koy sottil Sonko day bok gañu réew mi bokul réew mi tàkk Oustaz garaaw na de bàyyi bàyyi di wax Oustaz bàyyi di wax tàkk garaawul Babacar Babacar tamit ñun ñun tamit Babacar tamit tamit tooñ weesuwul nag Babacar nga tooñ ñu ba pare nga def lu la neex di tëdd di naaw kan dafa am lo xamne du man nee na la yalla moko programmer programmé est ce xam ngeen lu waay wala ñun dañu japp ni ñoom yalla mo moom suuf si gis nga tek nga injustice mu door injustice sa kaw ko lolu du man mako bëgg c'est naturel c'est naturel lu waaw bu naturel la manam togn bu yo bu agge ndoloxtanam rek c'est fini day wad te nguur gi la jëm moy togn ñun ñepp peuple bi tas suñu yaakaar ñu ñëpp peuple bi ñu toog di nelaw Babacar mënuñoo nelaw yàlla yàlla def jàmm ci réew mi mais jàmm jooju ñoom ñoo koy suuxat yàlla yàlla defal ñu sutura defal leen ko suñu bëggee réew mi am jàmm ñu bàyyi Sonko mu dem élection jàmm ñu wateel ko jàmm bu yoree réew mi yor ko bu ñu yore suñu yàq delloo ñu ko ñu ngi leen jaajëfal di leen gërëm di leen sant yàlla yàlla dimbali ñu dimbali